Antoine dama dimbali ngir yàlla gis nga ñi ñi xay jaaykatu xeesal ñëpp dañ leen tëj tëj leen seen place yi dama dimbali ngir yàlla nga tëj seen place bi parce que jaaykatu xeesal dañoo xeeña xeeña xeeña xeeñ soo xeesalee soo xeesalee da ngay xeeñ kullu kullu kullu kullu kullu poison kenn xamul am na ko benn xarit boo xamante ne jabar da doon xeesal mais dafa jékki-jékki dee billaahi parce que poison la billaahi gëmma assassin pour rey nit te góob ma assassin boo xamante ne ah, ah, ah, day day day day sàcc góob ma leen. xam nga ñu ñoo assassin jaatul xeesal. asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan ci Dakar Live TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen comme ni ma koy defee saa su nekk rek damay créer plateau yi ni mel fas yéene ak waxtaan. ka nga xamante ne rek moom mooy sama invité ginnaaw loolu maa ngi jaajëfal bu baax a baax sama caméraman euh, mbay tey moom maa ngi am mbay mbay la mbar la mbar war a mbay pëccaa man dama xamul sax fan war a taxawee <laughs> man aji nuyu naa la ziar naa la nii mbay bo Kouthia boo fi wax mbay Kouthia bi sax léegi laa gën a bëgg ah lu tax ah Kouthia sa papa la ah sa papa ah déedéet man mënumaa dégg loolu de mbay. sa papa la. sa papa la d' accord loolu loolu dinañ ci ñëw xarit la ku baax la sa xarit la d' accord point boobu duma ko laalagum ndax jamono jii soxalaguma incha allah dinaa ci dugg directement mbay. <laughs> incha doon la gis bi nga xamante ni moom moo di euh, DTV. nga doon fa amal émission guddi gi yow ak ki nga xamante ni moom moo di euh, DJ Yves mais gis nañ ni jamono jii euh, nemmeeku wuñ la ci plateau boobu. lan moo ko waral damaa jël congé. jël congé. waaw damaa jël congé. congé bu mel nan. waaw jël ko ah liggéey ba sonn ko ay at noppalu ko damay noppalu. ah déedéet e e mhm. mhm, mhm. sa place keneen laa fa gis de. kan si. DTV. kan la ko kan si. DTV sa place ma ni keneen laa fa gis. keneen. waaw kooku remplaçant rek comme moom. remplaçant. moom nga ko jàppee remplaçant te dara wala. moom nga ko jàppee. d'accord lu tax nga jàppee ko remplaçant. a ah, mais sonn naa kay toog naa kay keneen dafa war a ñëw. ah mm. loolu kay dama kii la rek. d'accord man dama am écho que ni yow Mbaye da nga da nga bàyyi DTV. DTV man jàpp ma leen woon ba leen doon bàyyi. ah wax loolu. ah waa di ñëw naa kay du du kii du contrat du xaalis du dara kay dama doon ñëw di tourné rek di jàppale DJ Yves rek ah, loolu du jàpp jàpp. da demoon di DTV pour jàppale di Yves. waaw loolu moo la fa yóbbu woon nekk ma foon de. su ma déggee ama fa woon saleer waaw dama faa nekkoon noonu rek di mais. Mhm. nekk ma foon de mu Sénégal wéruñu <laughs> Sénégal amuñu programme moo tax dañuy topp ay dañuy topp programme am sës. Mhm, mhm. Sénégal amuñu programme dañuy gis action quoi. avant de parler il faut réfléchir xaw ma nan la ko waaj di waxee. balaa ngaa wax faw nga xalaat ba noppi. waaw mais nan ngay mm-hmm. kiiyee. Mm-hmm. nan ngay di gis nit benn guddi suñu la ko kii ko ndey. xam nga fan laa nekkoon. Mm-hmm. déedéet TFM duñu fa ñëwagum. nekkoon nga fa ah, dëgg la mais duñu fa ñëwagum suñuy wax mais DTV nekkuma fa woon. nekkoo fa woon ah Yves laa doon jàppale ci benn plateforme. Yves doon jàppale. Ah, ku baax la ku ku ma mhm. ak ruutu sax rus sax moo taxoon. ndax mhm. moo ko doon def leen waaw ma Yves dafa baax yàlla ku baax la nit ku baax d'accord mais euh, jamono ji sa diggante ak Yves demeewul noonu ndax ndax dégg nañ ni euh, yow ak Yves jamono ji da ngeen a euh, jaaroo taal. non non sama xarit la de te sama xarit la plateau bi mën naa ko bàyyi mais Yves sama xarit la. mais la moo tax nga bàyyi plateau dafa loo fa def dañ la dàq. non non dàq xanaa ku ñuy fay la ñuy dàq. Mhm. waaw. mais xam est-ce que xam nga ni tey nit dina nekk ci plateau di ko xumbal ba noppi ñu dàq ko. non non xanaa ku ñuy su ma doon fay mais yow ci yenn anam nga duggee woon DTV. non Yves laa doon laa doon liggéeyal. Yves moo la woo woon kii waa. nga dem fa. waaw ma dem fa. ba jamono ma fay nekk jamono mooy liggéey ak Yves. kii amu woon ambition quoi amoon xëy di taxawaal. comme man ma ne xaaral ma rey fa temps ba leneen ñëw. léegi comme am naa luy dox fay. Mhm. liy dox dinañ ci ñëw. waaw kay waaw léegi ma bàyyi ñu leen doxal rek. foofu mhm. waaw suñ ko mënee parce que man. suñ ko mënee nga wax de. man fu nekk ni mhm. maa dul toog benn télé te duñ ko fay bi man li ma gën a jaaxal mooy <laughs> mhm. yow dem nga TFM nekk fa di fa liggéey mhm. lu toll ci six ans wala sept ans wala huit ans su ma juumul mhm. nga nekk fa sans salaire nga nangu loolu TFM la doon fay ah dañ la doon fay <laughs> d'accord ñëw lan fa fayuñu la mbay TFM lan lañ la fa fay ñu la fa dara <laughs> da fa nekk six ans sept ans wala huit ans ñu la lu tax nga nanguwaat ko dee non non fayda am nañu wax rek kan ma la wax dama ko gën a ah yow Mbaye yow yow neex la fay amoon na amoon naa fa kii prestataire. waaw prestataire waaw waaw tey te kii ma sax mais. déedéet Ndeye Mbaye xanaa tey ngay wax loolu ndax yow toog nga fi ni TFM daa ñu la fay Mbaye. tey nga toogaan ne dañ lay fay prestataire lañ ma doon jox prestataire. maanaam dinañ la dinañ dinañ la jox chaque weer dinañ am dinañ ko am mais ko def si ay. comment bokkul ak salaire comme ni ñuy fay ñeneen ñi bokkul mhm, mhm. comment la prestataire sax moo tane di liggéey comment chaque weer la non Sénégal moo moo metti rek xam nga wala gars yi di def loolu am na ñoo xamante ne ñu ngi solo ba jekk di dem ci bureau yi te kenn fayu leen mm-hmm. Sénégal moo metti mm-hmm. ndax bañ a toog bëgg waa góor mm-hmm. comme naa nga mais da nga siy da nga siy topp xam nga la soo amul liggéey sa da nga si nekk di si nekk dina sekk ba am lu yàlla am benn affaire bu lu ubbeek so nee nga bàyyi dem dem dem dem def leen xam nga mu arrangé tu ma su ma neexee d'accord arrangé la parce que boo amoon salaire doo fa jóge waaw kay su ma fa amee kii nag ma mhm. fa amoon salaire mhm. ñu may fay ñoom ñoo may contrôlé man sañ maa jékki-jékki rek nga bàyyi na mhm. waaw nag am na am naa beneen affaire boo xam léegi comme sama moom sama bopp xam na wala dama su ma neexee bàyyi dem dem d'accord émission Goudigui noo ko gisee jamono ji est-ce que mi ngi mi ngi dox comme bi nga fa nekkee ni mu meloon wala dafa tagga témbe non non ñoom ñu ngi doxal ah yow télé yi <laughs> ñu ngi doxal mais ngi doxal comme mbay ni mu doon doxal ah, ok ngi doxal ok parce que euh, télé yi ñu ñu bëri ñu bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi waxuma télé de man guddi gi laa émission guddi gi est-ce que ah. ñu ngi doxal comme mbay ni mu doon doxalee ah suivre tuma ko wax dëgg yàlla ah. man moom du ma suivre télé hmm? man su may ma seetaan hmm. man samay liggéey bopp mu ma nekk dafa dafa mu jëlee kaw mais Mbaye na remplacé ku mel ni mbay xam nga man ku bizarre dañ ma koy wax rek am na keneen ku fa toog mais barke Serigne Touba. ba tey ma il faut nga xool ko après. xool seetaan la moo tax xool la moo tax xool jot mais tey yaa ngi ak sa téléphone yaa ngi ak sa connexion. non liggéey laa yor di muy dugal ay vidéo di artiste yi di dugal. Mm-hmm. dëkk bi mm-hmm. xam nga loola. loolu laa tal nii dootuma ay kii kii nii. d'accord mais mais noo gisee tey bi nga xamante ni sa baay am na ko ci ci ci des TV. waaw gars yi ñu may woo jot naa ay tur gars yi naan da man ku ma kii man leen non bàyyi kii wu ma. Mm-hmm. damaa rek. Mm-hmm. Ah, eh, d' accord oh. mais est ce que tey sénégalais yi mënuñu wala ñenn ñu jàpp que ni tey ki fi nekk nii moo gën a ay mbay par rapport ak question yi ni mu ko doon. waaw loolu baax na sa a non man boobu tollu ma ko quoi ay di calculer mhm. mais mais moo la fa jëlee de war nga ko calculer de. noonu non jëlee wu ma man maa maa dem. yow yaa bàyyi ah man man. Mhm. maa jël décision. Mhm. parce que maa ngi jëm mag. yow mi. Ah, mbay maguloo maguloo mu maa ngi jëm mag xam nga uh-huh. war ma doom war ma papa xam nga comme defe famille war ma uh-huh. euh, amatuma temps di toog uh-huh. di liggéey te duma fa jëlee dara comme man loolu man maa may sama bopp nga doon jël décision yooyu la moo tax xalaat ko non boobu da ngaa kii woon amatoo xam nga amoo woon boobu naa mais diir bi dafa dafa xam nga may nekk euh, Euh, télé ba kii si Kouthia daan naa am xaalis sama mhm. may jox sama yaay di jox sama papa di kii ba mhm. lu lu yàlla jeexal yàlla jeexal ko comprendre ma am lu ma ko naqari comprendre retour mhm. yi ma am wara woon bàyyi wara woon bàyyi wara woon kii lu metti metti yoonu ndaw day metti retour yi koy jot lu bari bëri bëri comprendre luñ la fa dañ la suñ la doon rey sax nga a toog retour yu di ma dal xam nga léegi ma ne yàlla baax na man du ma lekk man du ma yegg si eh, woccu di mhm. lekkaat man bay man loolu la ma yàlla bindee man du yàbbi di lekkaat mhm. mhm. moo tax même suma ma doon lekk suuf sax damay toog ak sama wax man dama dama dama jël benn yoon boo xamante ne yoonu dëgg laa yoonu dëgg laa ko toog xam ñu baax lañ ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii lañ ñu ñoo xamante ne su ma amee problème. waa TFM. waa ñoom ñu nekk si groupe ba TFM ñoom njëkk a woo. ñoo la njëkk a woo. Mhm. ñoom laa njëkk a dégg dégg seen appel. bi nga bàyyi DTV. non non non non. Ah, laataa ngaa ñëw ci métier bi. avant ma dugg. Mhm. dem ay DTV sax mais liggéeyu ma ko même bi ma nekkee DTV sax damay gis su ma amee benn problème si affaire ni mu dégg ñoom lañ ay woo. Mhm. cameraman yi xam nga ak kii. ñu may woo na ma lii bul def xam nga loola ba tey ñoom seeni seeni seeni ba tey ñu ngi may bàyyi xel waa TFM waaw kay ñu ngi may am na ñoo xam ne ñu ngi may bàyyi moo ma jaaxal mbay mbay tagg gi fi mu ne nii dafa mel ni tulleeg màlle mbay tey bu fekkee ne da nga ñëw directement ci émission bi di tagg TFM di leen a mbay li nga def lu tagg non non tagguma leen mhm. non ma leen xam nga lan la li nga def lu mu doon yow biran biran liggéeyu ma ko liggéeyu ma TFM mais xam nga tabaski bi moo ma xar Birame mm. Ndour waaw ah, moo jëndal jox ma ko kon su ma leen waxee dara lu bon kon man imbécile la jëndal ma xar bu rëy laajal këcëb sama këcëb moo këcëb sax moo ko ja këcëb moo ma ne Birame la jox xar. Mm-hmm. barki Seexul Xadim mu jox ma xaalis bëri bi ma tijjee sama sama sama sama kii euh, euh, euh, envoyé wu kaay. Mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. man damaa tiit barki Alxuraan Karim te liggéeyul ma ko defuma ko dara. xam nga la léegi. mbay changement am na ci diggante bi nag. Eh, waaw changement am na ci diggante bi. Sénégal ndax ki la déggoon tey yaa ngi may tudd turu Kouthia te yow toog toogoon nga fi ne eh, bu kenn wax sa tur ba noppi teg ci Kouthia tey yaa ngi tagg Kouthia eh, ginnaaw loolu dem nga. ci ci DTV wax ci waa waa TFM. loolu yow foog gisee. tey yaa ngi. non taxaw rek ne xam hmm. yow yow da nga mos gis fenn koo xamante ne. Hmm. fenn koo xamante barke alxuraan fenn koo xamante ne émi ban émission la taxaw ne di xas ci Kouthia yow da nga gis. déet da nga ne woon sama mbay gi buñ ci teg Kouthia. xam nga Sénégal. <laughs> lu tax nga bañal nga ko ci afatal la. xam nga Abdoulaye Wade daa am wax lu garaaw dañ ne uh-huh. soo bëggee siiw da ngay toog siiw. xam nga nag boobu da nga a siiw. waaw kay mais fi mu na la. coolu uh-huh. coolu Kouthia la. xam nga nag coolu coolu parce que man jugee naa ci ay yàgg ay ati ati at mënu maa fexe ba Kouthia de jar naa si ay télé jar naa si télé. lu boo xamante ne taxul waxuñu mbay de TV waxuñu waxuñu Mbaye ki ne Mbaye ki taal lañu wax kon kay jur boobu dafa mel ne yàlla moo ko teg mëntu ma ko mën ma ko bi yaa ngi fàttaliku bi ngay toog per bu xaar di la wax Mbaye Kouthia nga ne ko deel wax Mbaye bul ci teg Kouthia bi est-ce yaa ngi fàttaliku jamono ji nga doon wax loolu ma am na non ay kii yow ak yow yow ñëwee yàlla de mbay yow fan laa toogee a fan laa toogee yow sa diggante yàlla fan laa toogee ne nga ko waxee ne ne ne bu leen ma waxati mbay ku caa dee leen kase yaa ko non loolu mosuma ko wax de mais mais tey dama gis yéen seekat yéen yéen saa yi yéen am na ay wax loo xamante ne lu nekk mbay ah billaay am na yoo xamante ne lu nekk mbay keneen moo doon wax non yaam yow ko wax da ba pare nga c'est que Sénégal a bàyyi teel dëgg na rajax man war toog man sañ naa toog naan bu leen ma waxati mbay bay mbay te ku caa génne woon si télé ba ñëpp xam koo wax mosuma ko wax de d'accord ki doon wax du mbay ki doon wax du mbay de mosuma ko wax ku caa sama xarit la sama papa démb ñu déggante sama xarit la sama xarit li may def nii tax si internet bi nii d'accord yu bëri moo ma koy moo ma koy xel mm-hmm. waaw yu bëri moo ma naan defal nii xam nga ko kon ku baax la mm-hmm. defal nii defal nii laajal def nii di si génn mm-hmm. comprendre nga waaw retour yu bëri naan liggéeyalal sa bopp xam nga wala bul langa nga amul si kenn. Mhm. liggéeyal sa bopp xam nga retour yooyu soo koy jot. li mhm. nga dem ba xam ni kon mbay nit ñi ñoo bëgg nga dem dem ak bëgg ma dem ak sama bopp. d'accord mhm. te pare boo xamante ne bàyyi naa toog si télé boo xamante ne amul contrat amul man maa bàyyi loolu. man maa bàyyi toog si télé. te du ma jëriñ sama yaay man maa bàyyi toog télé. te du ma jëriñ sama papa. Mhm. du ma jëriñ sama bopp. Mhm. parce que bi ma siy nekk yàgg na. li nga bëgg a yàgg xam nga. nekk mhm. naan mbay mbay fii la nekk mbay. teg nga fi teg nga fi teg nga fi ba sonn. damaa dañ ma fu ma romb ñu ne mbay teg nga fi toj nga fi ci ban am li nga doon li nga doon vexé yi mbay waaw danga doon vexé invité di dugg ci li nga xamante ne waruloo koo dugg dem bay créé ay mots yu nga xamante ne amul mbay waaw non am am créé loolu loolu kii la am kii la quoi ambiance bi nga doon dundal no kii la xam nga lépp man mbay dama bëgg lu may lu may su ma si defee un mois ñëpp xam ne mbay la comprendre nga dama dama su ma su ma tey lii seen site bi mhm. su ma fa nekkoon ba yor seen drapeau mhm. du ma nangu mu daanu mhm. force si kanam rek jëm man maa mel noonu comprendre man lu ma jàpp day dagg waaye sa kaw la jëm d'accord comprendre nga man maa leneen ak leneen leneen lu ma dugg damay bëgg balaa six mois ñëpp dégg ko Sénégal ñëpp dégg ko man maa mel noonu mais comme c'est léegi pour benn yàgg yàgg yi nga xam ne damay doog a bàyyi si Kouthia lu ñu dégg nañ ko mbay Kouthia moo ko doon yóbbaale mbay xamul dara mbay kii c'est-à-dire mbay waay yow Kouthia da ko doon jàppale nii rek xamul dara jàngul affaire yi ah man ma jàng man ma juddu ah jàng sama liggéey ba mu mokk fu ma taxaw. ñu ne ma ban liggéey nga jàng. non ah, ko jàng. d'accord comédie bi. waaw ko jàng. Mhm. xam nga wala. Mhm. jàng ko toog nag ci dox dox xam nga du ak animateur ak journaliste. waaw dama dama dama dama jàng lépp. xam nga mais Sénégal ñoo ñoo ñoo mën wax loo xamante ni dëgg fii laa bàyyi Kouthia ah influenceur yi ku nekk jug ah Mbaye Kouthia da ko doon kii da ko kuyi ah, ma dem si Yves xam nga lan ma ma ma ma ma ma saa. mais laata ngaa dem ci Yves Mbaye da toog di tagg TFM da toog di tagg Birane Ndour te am na ab jamono TFM porté woon na la plainte ginnaaw mu porté la plainte jamono jooju amoon nga loolu la xarit tey nga taxaw. tey fa mën nga porté mbay dañoo xaj ci man tey moom xaj bi ci man si ma boor yow yow ñoom sax xaj ñu si man sax kon la waaw tey yow yow tey mooy équipe bu mag bi. mais jamono ji nga duggee woon ñu dàq la ne mbay bu mu dugg bu mu tegati tànk TFM nag jamono koo xam ne. non non kàkkatar nga may war. non non <laughs> mosuñu maa wax kan moom ko mos a wax. kenn ci télé bi ko ne mbay bu mu duggati ci télé bi. kenn mosuma wax ne mbay bu mu duggati ci télé bi. d'accord kenn mosu ko wax. mosuñu la loolu moom kenn mosu koo wax wax dëgg yàlla. d'accord kenn. Hmm? Uh-huh. kenn mosu koo kenn mosu koo wax. kenn mosu koo wax kenn mosu laa daal mais mës nañoo tëj bunt bi ne bul dugg ci biir. Hmm. musul koo am musul musul am de biraan sama xarit biraan sama dinañ ñaanal yàlla biraan nguur mu yàgg fii parce que ku baax la day joxe man social yi muy def rek moom moo ma neex day def social di def social barki musul laay xoolal mu ubbi. ñëwaguñ ci loolu est ce que li ngay du dóor marto pour pour ñi nga xamante ni jamono ji ñoo lay seetaan te mbay dafa mel ni da nekk ci tànku dellu TFM man li ma gisee say waxin dafa mel ni da nga nekk ci tànku dellu TFM. dellu ma de dellu ma damay liggéey mais ni nga tàggee euh, Birane Ndour di wax di dafa baax. la parce que damay damay day parce que dafa may xaru tabaski jox la xaalis. non day du loolu waaw mais ku la defal lu baax soo ko waxul ah, yow euh, kii nga. mais toog nga fi xas TFM. non non mosuma ko xas génneel vidéo yow nga xas TFM. vaar vaar danañu man xas. Mhm. Ah, Kouthia laa waroon xas parce que moom moom laa amoon. mais yow bi ngay xas da nga boole Kouthia ak TFM. non non musuma xas musuma xas xas leen. musuma ñoom su ma su ma xasee kon pour laa du ma gërëm ñoom daaw parce que xam na la ñoom ñoo ma njëkk a ñoo ñoo ñoom ñoo ma njëkk a sagal. est-ce que buñ la sagaloon dinañ la plainte. parce que plainte wu ma parce que fa laa dem bi ma ni ñëwee Dakar. Mhm. ñetti yére laa fi indi. Mhm. comprendre nga. ñu mhm. Fatma xam nga ne wala mm-hmm. di di di di di ma di di ma di ma di ma di ma di ma kii xam nga mm-hmm. kii di ma jox seen xaalis may dem sama kër suqaliku waaw set wicc mm-hmm. xam nga ne wala am yaram set wicc wicc wicc di dem Dakar di dem fii ñu def ma star xam nga wala ah, def ma star fu may dem fu ma jaar ñu ne mbay TFM sagal na xam nga dootu waay yow ma nekk star bu mag nga na mbay ñoo ma ñoo ma def dañ laa teg naan ay. d'accord waxuñu weer waay doon. tey boo ko waxee ñu tey man damaa sonn sax sax ñoo la jiyee yi ni mel fàtte saa neex jamono ji nga ci Thiès di ñëw ci saa neex mu lay jàppale ci sa gémmiñ laa ko déggee. kañ laa la ko man Aziz laa wax de Aziz ñaan laa wax yàlla na ko yàlla fay ak Guèye Tara nga ak Maïdou Nzi ñooñu sax ñoom samay xarit lañ. saa neex yow fan bu bàyyi. lan mooy sa problème ak Sané ci koo xamante ni moo la daan jàppale. coupé coupé jóge woon Thiès non non coupé barki Rusu laay bàyyi nekk bilaay walaay taala barki Rusu damay bàyyi émission émission bi non <laughs> bàyyi ngeen fay teg non non bàyyi ngeen fay tamit. non non parce que mbay. non non bàyyi ngeen boo xamante ni eh, non non bàyyi ngeen ñamu daaw non bàyyi ngeen fay tey boo fi toogee. non non wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma non non non non non non. boo jóge woon Thiès ci këram nga daan fanaan moo la daan sang di la jàppale. te xam nga sos baaxul ko non non <laughs> booy tamit. non amul bàyyi li nga. non non non wuy ma ñu wax ko. aji aji silence quoi. ba boo kii si lii sama émission la comment lañ. am na wala émission ngay ñëw defar moom mais ma kaa ñëw bu ruubee. non non kaa ñëw ma la mais. non non bu ruubee déedéet bu ruubee naan ay kii moo la si ak kooku la. yow lan mooy sa problème ak saa non non kii naa ma ne Aziz Niane sama xarit la. comprendre nga. Mhm. ah ay zozo. bii tëraanga sama xarit ñun zozo mooy xarit lañ. xam nga wala ñoom. du ñu wax du ñu dem fenn di di yàq der comment. kan mooy yàq der. non non taxaw ma la ñoom. Mm-hmm. du ñu dem fenn di ma peinture. Mm-hmm. comprendre nga. ku lay peinture jamono non non taxaw ma la. Aziz Niane ku baax la. yàlla na ko yàlla fay xor xolam Serigne Aziz Ndiaye. Mm-hmm. Serigne Serigne Serigne Say. ñooñu samay xarit lañ Say. waaw su ma demee Thiès foofu sax laay nekk. ñoom euh, laay laay laay kii parce que si sama complice la daal bi Cheikh daal bi Serigne Touba la yal na ko yàlla fay xolam géy teraanga ah ci ñoom ñoo ma si xolu sénégalais yi mhm. comprendre nga mhm. naan ma fii la nii la ni nga koy defee ni nga koy defee mhm. ñoom géy ak euh, problème bu am Aziz ñaan Aziz day sonn ci man di wooteeg di kii ah mbay du du kiiwam du xolam mbay waxul lii suñ ma sosolee mu ne non du mbay moo wax lii xam nga la kooku nit ku baax la xam nga la waaw amoon nag fi coow lu xamante ne lu lu lu bu xewoon fan yee passé ñoom ñëpp ñu na ñu kii xam naa affaire metti woon na. Mhm. mooy sorte ma defoon ak sama téléphone. ak mhm. vie ba mhm. loolu sama liggéey rek laa def. loola mais coow li moo xawoon ëpp loxo rek. ba tax na lan mais waaw kay ba ba affaire yi pël mi gars yi naan ay waay waroo woon def lii. Mhm. di jaxase bu jaxase wu ma sama liggéey laa doon def rek Aziz dina comprendre. liggéey xew ci diggante bi. non non gars yi doon doon génn di wax di yooyu xam nga di tontonte xam nga yëpp ñu ne mbay moo waral loolu te xam nga te lu ma dara man damay liggéey rek. d' accord mais mais mbay est ce que tiit jotul tey bu fekkee dañu dem ba toog di def entretien euh, di tudd Sanekh ngay bañ ko tudd tëram ci mbir mi est ce que tamit non non dara man maa bëggatul non man maa bëggatul. yow loolu la saa neex non non non non bàyyi di ma wax. sa def saa ma dimbali ma ma maa fay téléphone télé barki seen xol no non bàyyi na billahi moytul sama sama boya bi kaay toog. ah bàyyi naa waay tamit non non non fayal barki rusulaay kuy ci ku ma bëgg tudd lañ tudd ku ma ah yow d'accord toogal te nga moytu moytu. non non non non d'accord toogal moytu daaneel sama sama sama. non dañuy demaat si leneen waaye tamit. ñëw lan mooy tuddalee ko. ñëwal ñëwal toog looy bañ ñu kii loolu wala wala. ñu ko ci ba tey nga porté plainte. loolu la ñuy apporté loolu mooy sax yow li ngay wax nii. tax nga ragal da nga ko ragal yow da nga ragal Sané ba mu tudd turam. bit di tëf tëfi lu xew luy problème. non man xam nga li ngay wax nii xaw ma ko. xaw ma ko lan la loolu lan la problème bi. sa diggante ak Sané am na lu ci. waaw non non non non sama yoon si moom. non non non sama yoon nekk ci si moom. Uh-huh, uh-huh. non sama yoon nekk si moom. non non barke Rusulaay non bu ma mer la waay bàyyi yooyu waay ah. d'accord sama xam ko xaw ma ko. xamuloo Sané oh. euh, ku ci nekk am nga ci droit. xaw ma ko neexee nga ne nga ne xamoo Sané. ñu ñu demaat directement ci li nga xamante ni. Ah. moom mooy tagg bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko. Euh, nga koy tagg ñi nga xamante ni ñoom ñoo di TFM est-ce que du mbay dafa dafa sol daal ngir ngir dem fi nga xamante ni moom moo ci TFM tax jamono ji mu ngi tagg Kouthia mi ngi tagg Birane Touré. non Kouthia damaa damaa waxtaan moom xam nga la fan yii ñu ngi waxtaan man xam nga laa doon ooyee. xam nga lan moo tax ma ma doon xas parce que daaw ñu déggante xam nga te léegi ñun ñu ngi déggante. moom Kouthia waaw. Mhm. seytaane yi si doon wax yëpp xam naa leen. Mhm. fi mu ñu doon fekk si sama diggante ku caa xam naa ko. kan ak kan la. non du ma tudd am na foo xamante ne nag su ma wax su ma wax jotee. Mhm. naa wax tey wax jot na de. non non wax tey comme ma nga. Mhm. ñi doon fet ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ma jaxase Kouthia <laughs> xam naa. mais est-ce que di dem ci caq di dem ci Kouthia. mbay est-ce que li ngay wax di dem ci Kouthia di fen. Mhm. naan mbay moo wax lii mbay kii moo wax lii di dem feneen di wax di ma man xale man man seen doom laa. xam nga ma laa ah, man damaa war a toog koo xamante ne sama yaay rek laa am. xam nga ah Sénégal dañu dañoo mën a toroxal pauvre surtout nga juddu nga juddoo si xaalis. wax sénégalais ñenn rek comprendre non non. seen mm-hmm. dañ lay gis koo xamante ne. Mm-hmm. da ngay judd man mbay da ngay juddu si dara da ngay juddu maanaam si dara judduwoo si xaalis judduwoo si dara mm-hmm. sa papa amul xaalis sa yaay amul xaalis say rakk amul xaalis say mag amuñu xaalis comprendre nga mm-hmm. la ñu yaakaar nga jug di di di di di di di di taaba taaba su amee cent franc dajale su amee kii dajale woo sa yaay jox xam nga yow mm-hmm. doo lekk doo naan billaay sa yaay sa rek nga bëgg xam nga ak say rakk ak say mag yooyu xam ah parce que kër ndox am fa su dul yow non non su dul non du ma yow du baax <laughs> nga am fenn foo xamante ne ñooñu xëcc la di la jox cent mille cent mille yooyu da ngay yëkkati jox sa yaay jox sa yaay ak kii bi ba mu jeex xam loola yow loolu doo ko ko yéenam ne ko kii de il faut ñu koy jàppale kii il faut mais dañ koy xañ loolu xam nga lan di ko xañ loolu di ko naan non kii il faut kay day commencé fuuy léegi xam nga senegal suñ lay yëkkati ñu lay ñu après ñoo lay boor naan non kii soo sancee soo sancee mhm. yor oto sa ñu commencé yow non kii imbécile la kii dafa commencé yëg boppam dafa commencé fuuy dafa kii xam nga la ñu ko bëgg laa kàrgal d'accord xam la la dem jaxase la ak say nit da nga gis ne sa jóge ci Kouthia ay nit ñoo la doon jaxase waaw xam naa mujjee naa ñu jaxase est-ce que ci télé bi lañ nekk wala ñu waaye yow yow say noon say xarit lañ ñu ngi lay reetaan chaque jour di la yenn saay sax ñu enregistré la. Mhm. xam nga mhm. ngay wax ak yow yow ku lay ku lay ku lay daaneel sa xarit lay doon. Mhm. dañ la mës a enregistré tegal ko. non non non dañ lay en non ko ñu la a bëgg am na ñoo xamante ne Kouthia ku ma bëgg la. Kouthia dafa ma daan wax naan gis nga ki ngay lekk xaalisam chaque jour. kooku mooy sa premier noonu. Hmm? barki Seexul Xadim ki lay Kouthia dafa ma daan wax naan ku lay jox xaalis moytu. ku lay jox xaalis. nga koy lekk kooku poson ngay lekk moom doon ci moom da la bëgg a rey mhm. parce que poson loolu nag mooy senegal gis nga nit dina la lay jox xaalis di naan la am kii fekk kooku mooy sa euh, euh, euh, mooy sa mooy sa mooy sa noonu dëgg moo lay war rey waaw mhm. ah, bëggu la di la ree di kii fekk bëggu la xam nga yow nag soo nekkee xale xale boo xamante ne da ngay am da teel a am tur xam nga mhm. doo xam ñu la bëgg doo xam ñu la bañ xam nga ñëppay ñëw xam nga ñëw pour di wut si yow xam nga di la kole xamee woon baax ak bon di la wax loo xam nga di la kiiloo ngay kii soo waxee soo waxee ne maas na namu naa la ñu ne maas mbay jëw na la xam nga <laughs> waa man barki Serigne Touba billaahi wallaahi taala man du jëw kenn du ma wax lu bon <laughs> billaahi du ma wax lu bon du def lu bon ak barke alxuraanu karim suma wax lu bon billaahi wala taalaay suma man nag naay wax nit ñi pour nit ñi di ree xam nga pour nit ñi di ree xam nga pour may am mbégte ak nit ñi mais nit ñi ñoo dul bàyyi sa sago ñoo dul bàyyi mbay loo mooy def loolu parce que foo waxee dara ñu ne i mbay moo wax lii rek gaaw xam nga fekk yow mën ngay def sax éeréel mën ngay reetaanloo nit da wax ko pour nit ki sa digganteeg maag ami wala maag maas mhm. pour maas reetaan nga si ngay comédie waale daal nga wax benn erreur ñu exploité loolu pa ne ko ni i may profito wax loolu wala ñu defar wax yi te jaxase leen mhm. Sénégal nañ bàyyi loolu comme nan la d'accord man barki Seexul Xadim dama bëgg ñëpp nekk ci jàmm mhm. ñëpp di nekk ci jàmm ñi doon xuloo tax di nekk ci jàmm parce que àdduna àdduna dafa kii daal àdduna dafa dafa xat. waaw mbay bi ngeen di xeeb mën na nekk jékki-jékki nekk. nekk président président sax. parce que benn si exemple Youssou Ndour Youssou Ndour dama jékki-jékki damaa amoon sens yenn saa yi mu may xelal. Mhm. yenn saa ma def yëpp ñàkk fayda waaw mu ne ma xamoo looy doon ëllëg comprendre nga. waaw lu boobu pourtant doo xam lan la xam nga mais Sénégal dama bëgg ñu delloo si seen xel di jàppale néew yu doole yi mhm. comprendre nga. koo xamante ne néew doole la yorul comprendre nga amoo kër bu taxaw amoo dépense bu jub comprendre nga soo añee doo reer xam nga waaw soo reeree doo ndécci comprendre nga kooku di xar tànk ci ba yëm man du gëj naa nelaw parce que xam gëj naa nelaw sax. lu waral nga gëj a nelaw parce que damay damay liggéey dama bëgg réussir quoi. dama bëgg réussir sama. d'accord ah. ah. mais li ma bëgg mu leer ci bopp Sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi seetaan jamono ji mooy da nga yëkkati sànq ay kàddu wax ni euh, diggante ak Kouthia dafa am ñu nga xamante ni ñoom ñoo ci nekkoon. Mm. ñi ci nekkoon nag laa bëgg a xam ndax ci télé bi la. non ñi nekk ci biti. non non y a des yoo xamante ne ah question bi yomb. non na. non non ndax ci télé bi lañ nekk am na ñoo xamante ne. si mhm. mbedd lañ nekk am na ñoo xam si télé bi lañ. yow si télé bi sax lañuy nekk parce que. Oh, parce que duñu duñu. da nga leen doon déranger. waaw kay dama la doon déranger mbay boo xamante ne ñëpp ko bëgg. Mhm. mbay boo xamante ne ñëpp ko fan xam nga. loolu dañuy dañuy dañuy salu dañ naan xaaral mhm. ma ma ta kii ko ndax moo at ñu ñu saraxe la waaw wala ñu dàq ko du question dàq man duñ ma dàq man du ma nit ku ñuy dàq encore une fois sénégalais man du ma nit ku ñuy dàq comme man wala kenn ma dàq man maa rëy xam na la man soo ma mënta désert damay bàyyi xam na la man bëgguma euh, ñu may ñu may ñu may wut ñu may xool xool boo xamante ne neexul ma xam nga la wala ñu may euh, déstabiliser man bëgguma ku may ku may déstabiliser mhm. soo ma déstabiliser rek damay gedd man noonu laa mel sama naa bañ a lekk dara nag xoolal mais soo ma déstabiliser wala nga may tuutal man may bàyyi man waaw man noonu laa mel quoi moo tax man kenn du ma dàq. d'accord euh, am na solo euh, gis nañ nag actualité bi nga xamante ni jamono ji moom moo am mbay nga ci ñi nga xamante ñoom ñoo di diggante jaaykatu jiwu xeesal yi ci ni ñu ko mën a waxee ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo def euh, savon yi nga xamante ni moom mooy leeral ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen ñi ñu gis démb ki nga xamante ni invité nañ ko yëkkati ay kàddu daal ci koy daal mais nga gisatee gisandi coow li nga xamante ne amal nañ ko ci seen biir. waaw kooku on dirait que jàngatu xeesal yi. Antoine Philippe wa sama xarit. Antoine Philippe Senghor sama xarit la. billaay walaay taalaay ah Antoine Félix Ndiol sama xarit la. xoolal ku baax la. koo xamante ne day jàppale néewul doole yi xam nga. koo xamante ne lu mu wax yàlla moom moo fa njëkk Antoine dama dimbali ngir yàlla gis nga ñi ñi ñi xay jaay ko xeesal ñëpp dañ leen tëj tëj leen seen place yi dama dimbali ngir yàlla nga tëj seen place bi parce que. jaakatu xeesal dañoo xeeñ a xeeñ a xeeñ a xeeñ soo xeesalee soo xeesalee da ngay xeeñ xunnu xunnu xunnu xunnu xunnu poison kenn xamul am na ko benn xarit boo xamante ne jabar da doon xeesal mais dafa jékki-jékki dee billaahi parce que poison la billaahi poison la xoolal kooku noonu laa ko ñiiramtalee jaba eh, jëkkër ji jëkkër dafa jékki-jékki dee billaahi poison la xanaa moom non <laughs> si lan moo rey jëkkër ji non non poison yi diw dafa xëy ba pare di xëpp seen yaram yi di di salte loolu yëpp yow xanaa xamoo assassin gawma assassin pour rey nit gawma assassin boo xamante ne ah, ah, ah, day day day day sàcc gawma leen mm-hmm. xam nga ñu ñoo assassin jaay ko xeesal jaay ko xeesal maam Mm-hmm. sa maam ah fi mu nekk nii mënutoo ko xool. sa maam billaahi mënutoo ko soo ko xoolee da ngay da ngay tiit da nga naan kii moo tax ñun suñu famille dem la ñuy jiñ billaahi wallaahi taala parce que dañu ñaaw parce que ñëpp xees xeesal soo ah, non xeesal dañoo xeesal a xeesal suñu mag suñu maam yi de dañoo xeesal a xeesal ba suñu nekkee suñu amee quatre-vingt-dix ans yoo xamante ne billaahi doo doole <laughs> ñamee xool parce que dañuy dañuy tool billaahi ah loolu yëpp di ci cadre jaakaam xeesal yi mhm. xeesal dañ lay bàpp naan la soo sangoo bi mhm. lii lii akama akañ aka akañ la comprendre nga waaw yooyu yëpp ay fen la rek ay fenni kase ay akañeeg xaw ma piling yeeg yooyu ñëpp ñoom dañuy règlement de compte def kii naan fii bëgg nit ñi di ñëw ci yéen di yàqante comprendre pour nga nga ne maas maa maa gën Dakar suñu suñu bës maa gën Dakar comme loolu la rek mhm. xam nga la mais dara bu am ci boppam Antoine plus Senghor maa ngi lay ñaan waaw Antoine plus John maa ngi lay ñaan sama xarit yal na la yàlla fay billaay walaay daalaay su lu la président président yal na la yokkal ay ay garab ku baax la xam naa la lan laa bëgg mhm. damaa bëgg jaaykatu xeesal yi nga tëj seen i place ñu dem liggéey ah. xam nga la déedéet jaaykatu xeesalkat yi ñi ngi xasaw xasaw xasaw ah surtout surtout da ngay gis tàngaay ñu ñu tàng nekk si quarante cinq degré ñu tegle loolu gën a neex dañuy tegle xam nga loolu tegle cinq yére sept yére yow doo doo doo xamante lan la. tey mën nañu am beneen méthode bu dul tëj leen ndax. non non li ñuy tëj dañuy yàq société dañuy yàq société bi billaay dañuy yàq société bi. parce que da ngay gis xale boo xamante ne rafet a rafet bay bëgg a dee ñu posé ko si xeesal mu xeesal xam nga waaw soo xeesalee fii mooy njëkk xees xam nga nag <laughs> fii. fii fii mooy njëkk xees xam nga dafay tëb fii ñun fii. yëpp day tëb. <laughs> imagine suñu jeunes yàq na leen influence nañ leen. Mm. nañ leen ah, yi fi mu nekk ñi ñi rafetoon ñëpp mm. ah. ah fi mu nekk nii soo ma xoolee ah ñuul ñoo laay kaaba gëj gëj nga koo gis laay kaaba gëj nga koo gis comprendre nga moo tax eh, eh, gisoo léegi publicité yi sax bàyyi nañoo jël ju xees yi waaw suy gis ay ndey njaay la ñuy jël comprendre nga ay ndey njaay mel na sama xarit bu Cees borom polygame kooku rek mooy di publicité parce que wax nit ñuulaay yàqul der eh, kii yàqul deram mm-hmm. proposé nañ ko proposé ba sonn mu bañ ci xeetal waaw xam na xam na mu baax. comprendre xaw ma as. waaw ñun dañuy ñuul ñuul yoo xamante ne ñuul yu rafet la ñu ñuul xam nga la. Mm-hmm. ñuul yoo xamante ne mais ñuul lan moo ko dàq. Mm-hmm. mais xeesal xeesal yow da nga koy gis tubaab buy buy buy buy buy diwoo pour ñuul lan moo tax ñun ñoo gëm suñu bopp ñun. loolu gisaguma ko moom. waaw léegi yow yow yow yow tubaab bi deful loolu. Mm-hmm. yow nga bëgg a def loolu. ah yow kay ñàkk jom ak ak ak ñàkk fulla ak ñàkk gëm sa bopp kay. loolu moo ko waral. d'accord ñuy jaay ay pili nag. xam mooy piling ak ñoom ñëpp ci ay fet lañ nekk comprendre nga mhm. euh, surtout ma xale ki ñu invité woon keroog ban mhm. urul ay ni ngay waaw ban urul ay ni urul ay nan lañ koy nan ñu tuddee urul ay ni yàlla moo ko tuddee ñu nekk si kaw ñi nga xam ne ñun su ko waaj a dem àjjana mhm. da ngay dem urul ay ni ñu takk urul ay ni urul ñooñu ñooy ay ni ñoo xamante ne la ilaha illallah ñu nee naa ma. mais doon invité nga jàpp ko di di ko xas. di wax ay tànkam nekk ci tànkam. baaxul baaxul kii tànkam yi tànkam am non tànkam yi dafa am li ay kii. tànk yi dafa kii xam nga dafa xob xam nga ba pare nekk ci télé bi nekk ci tiktok yeeg ci réseaux sociaux yi. waaw lan moo tax ma wax ko si kii bi. émission bi waaw wax naa ko ko wax naa ko si émission bi. xam nga la c'est que nit ñi dañoo bëri bàyyi di arnaque nit ñi di nax nit ñi. Mm-hmm. xam nga jaaykatu xeesal nit ñi ngir yàlla tëj nañ tëj seen place yi. président xaw ma président xaw ma. ah bàyyi leen ah, Antoine Félix Diome tëjal place ci xeesalkat yi tëj nañ permettre place tëj mm-hmm. xeesalkat yi. loolu mooy président bi. noonu lañ koy tëj parce que ñu ngi yàq nit ñi. Mm-hmm. xam nga la yow da ngay gis. quarante cinq degré tàngaay wala soixante wala cent ñuy tegle soo leen ne dañu ne dañuy ñoral ñaral dañuy ñaral dañuy ñaral waaw ko xëb yi si xëb fii xëb xam nga loolu xolli waa di xolli seen der yi oh cap man man loolu laaj mooy ñaral lan mooy ñaral soo mm-hmm. soo ñaralee cinq cinquante degré nga si ci sol ay kii costume yow doo xam lan la Sénégal mm-hmm. c'est un pays mal Sénégal xam di di taxaw ah lawbe yi li ngay gis ah, lawbe boo xamante ne ñaa ngi tooñ nag ñaa eh, ngi tooñ ñoo ne ay lawbe la ñuy taxaw ñooñu soo laaj ñu naan lawbe la ñun suñu aada lañ mm-hmm. suñu aada la da ngay gis séeréer boo xamante ne jóge si kaw ga ñëw comme ne la war liggéey ah da gis xale boo xamante ne dix ans la am Dakar di diwu xeesal fii xees doo xam lan la doo ko mën a wax daal xam nga loola Sénégal niñ bàyyi yooyu nañ tëj ci ay jaaykatu kii waa nañ tëj waaw nañ tëj merci beaucoup lan mooy projet yi ban télé lañ la mën a xaar ak ci lan ak lan nga jëmal nii nii mhm. damaa yor sama télé bopp comprendre nga maa ngi si invité ay artistes mhm. am sama sponsor mu ngi may fay xam nga ne waa mi may fay waaw Mbaye Lemba TV mi ngi fi mu nekk mi ngi ñëpp xam nañ ko fi nekk sénégalais parce que ku ma jël nga siiw jamono ji coow waaw waaw loolu nag loolu la ñuy lañ lañ man dama leen ne comme que xamagu leen xam télé yi xamuñu sama njëriñ mm-hmm. nga créé waaw ma créé sama créé sa poste mm-hmm. parce que fi nekk ni mu ngi teg dëkk bi loo xamante ne moo tax man man xaw ma woon sama valeur mm-hmm. maa ngi doo xam sama loo xamante ne lu ma laal yàlla teg si loxo man lu ma laal yàlla teg si loxo waaw ku gëm loolu bësal jëm man mbay lu ma laal yàlla teg si loxo loolu sant yàlla la mhm. comprendre nga parce que lu ñu ne du dem su ma si duggee mu réussir mhm. kon loolu sénégalais yi ne abou de juger mhm. waaw mba xam ndax lu ma laal yàlla du si teg loxo la yéen laa koy laaj am na solo. merci beaucoup lan ngay tàggoo ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan jamono fii say fans. waaw ñu gars yi dañ ma bëgg parce que ah, commentaire yi dina critique yi day bëri mais dañ ma bëgg. mais suñ ma bëggul woon. du man du ma commentaire mais dañ ma bëgg. nga doon jël di poser question yu kenn sañu. waaw ba tey maa ngi koy def si si si mais xam nga la Sénégal loolu lañ bëgg comprendre nga mais surprise bi nag. Uh-huh. mu ngi ñëw fan yii dañ ma gis benn télé. nga dëgg de Mbaye <laughs> nga mais bay yow loolu loolu nan la la mën a dalee. nga def vidéo bu nga xamante ne say aw la nga ne fan nga ci site internet. bay bay loolu ban jumte moo la dama ne loolu loolu effacé na damay dama ne. Sénégalais yi. yaa fi njëkk a def ñaar ñëw topp la. non non nañ nañ ma xaar si beneen télé semaine bii semaine benn ñëw incha allah. d'accord foofu nag. dama bëgg ñëpp dem abonné. Mm-hmm. Ah, si si si télé boobu. Mm-hmm. di ko seetaan. mais may lambar lambar. non. mais mais mais mais baatoo juumaat ci vidéo yi ni mel rek. no non yaa ngi bàyyi xel télé boobu télé boobu moom mhm. du ma bàyyi. d'accord dama signé waaw mm-hmm. ah. ok alal amat moom <laughs> mooy d'accord <laughs> merci beaucoup Mbaye nga def attention ci vidéo yi nga xam ne a yi dootuñu ko gisati ndax defoon nga fi loo xamante ne nag yaakaar naa ni moom sama papa ba daf ma yoo xam nga kii ma ne ko déedéet ndax moo ko mosuma ko xam <laughs> merci beaucoup yow Mbaye si kan moo ko fi jëkkee duulu duulu amul duulu duulu am na góor am ci ak kan. ñëpp ko am léegi ah man damaa garaale. am ñaan de. Mm-hmm. du duudu feeñ la na fi. ngóor feeñ la fi. ah. kay jeex na. Ah, sama xarit la ko kooku na jàmmam yàgg. le grand chef de la boor ku baax la sama xarit la. Ah, euh, xamante ni yéen Euh, gis ngeen tey ki nga xamante ni moom la dalaloon mu daal di nekk rek mbay lambar lambar ñenn ñi xàmmee ko ci mbay Kouthia euh, merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax xam naa du ñàkk di ngeen ko seen ci benn télé ndax waxul rek li nga xamante ni moom moo di exclusivité bi loo bëgg a waxaat di ñaanal borom kii Njaay Gaynde Njaay Gaynde waaw Njaay Gaynde restaurant Njaay Gaynde restaurant bu baax la mm-hmm. moom fii ñoo may jox añ di ma fee yëpp fii la ñuy daje waaw kay ñëpp fii la ñuy daje euh, ñëpp fii la ñuy daje man tamit dama bokk cours de grand moo tax léegi sama liste fii la nekk a léegi sama suma añee uh-huh. fi ñoo a jox ma jox reer fi star yi xoola salle bi sax fii laa toog uh-huh. waaw dañ maa wutal benn waaw boo xamante ne clim baa ngi nii ah uh-huh. fii laay añee xam nga reeree naan glace lekk kii a ah, ni moom laa dalaloon tey mu nekkoon rek ki nga xamante moo di Mbaye Kouthia ñenn ci ci ñu nga xamante ni noonu lañ koy woowee di ko jaajëfal ci OFT bi nga xamante ni nangul nañu entretien bi ndax itam wax dëgg yàlla nekk na ay yitte waaye nag xajal nañu ci ñu koy sant bu baax di ko jaajëfal di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni moom moo di restaurant Ndiaye Gaynde mi nga xamante ni ñooñu daal may ngeen taxaw fii defee fi ab entretien di jaajëfal bu baax a sama cameraman mbokk yi di leen jox daal di ku may dalal jërë ngeen